sàmm sa kàddu sàmm sa kàddu ñu ñëwaat ci euh, balaa nga ñëw ci sàmm sa kàddu ñu joxe information juste boo xam ne information la concernant ki nga xamante ne bii mooy Barthélémy Diaz parce que on nous signale euh, image yi nga xamante ne bii euh, waa régie ñu koy am on nous signale que buntu kër Barthélémy Diaz dañ ko barricadé donc dafa am en tout cas ay policiers yu fa nekk voilà image yi nga xamante ne bii ñu ngi ko am nii donc en direct la fa nga xamante ne bii rek mooy. kër Barthélémy Dias en tout cas yebal nañu suñu ndaw li nga xamante ne bi mooy Daouda Waly ma nga fa daw jubali fa nga xamante ne bi mooy kër Barthélémy Dias ngir mën ñu dégtal euh, directement lan mooy situation bi foofu ana lan moo tax euh, euh, loo bu am importance bi nii ci wàllu sécurité ñu jë jël ko yóbbu ko buntu kër Barthélémy Dias ndax barricade la ndax itam dafa yokk rek sécurité Sénégal itam day dafa yokk sécurité wala dañuy bañ en tout cas éventuel trouble bu mën a am li lay waral ñu def lu ni mel en tout cas li wéte wóor mooy euh, euh, suñu ndawam fa jëm te itam bu eggee dinañu mën a xam exactement euh, lan moo xew lan moo waral lii lépp donc parce que lii dispositif la bu am solo boo xamante ne bii bu fekkee ne dem na kër Barthélémy Dias xaj na kon am na loo xam ne mën naa xew wala boog am na luy waaj a xew wala am na luñ ci namm suñu ndaw la ñu fa teewal daaw da dinañu jokkoo moom léegi léegi ngir mu mën ñoo dégtal lu xew buntu kër Barthélémy Dias ba police dem yóbbu fa matériel bu am solo bii ndax barricade la Euh, ndax dañuy waaja leneen élage waaw xam non xam nga ba Barthélemy Diaz ak naataangoom sax ci ñoom laa doon naa euh, waaj a wax noonu avant mm. ngay mm. jëlaat kàddu gi mais lii man euh, d'après ni ma ko gisee nii pour man mesure de sécurité rek boo xamante ni par exemple jël nañ ko yoon jël na ko parce que y a jours ci ginnaaw gis nañ li nga xamante ni moo fa amoon muy benn caravane bu président Ousmane Sonko doon def ba egg foofu ca Baobab donc Euh, ñu gis fa mu am fa ay yoo xamante ni tiraillement wala coow loo xam ne amoon na fa peut-être que mesure de sécurité yi ñu jël aussi c'est pour euh, bañ loolu répété waat quelque chose comme ça quoi lii aussi bu fekkee ne loolu moo tax ñu def ko c'est une bonne chose boo xamante ni euh, ñu ngi koy saluer quant à nag li may wax dama doon wax léegi ci waa Sàmm Sa Kàddu xam nga Sàmm Sa Kàddu dafa comme dañu ko dafa composé wu ak différents leaders politiques hmm. yoo xamante ni par exemple man li may wax encore une fois parce que ni pesé wuñu li tax pesé wuñu luur je ne le dis pas parce que dama leen di xeeb quelque chose comme ça wala dama am une dent contre mais li tax pesé wu mu ñu luur mooy damay wax ni le président Macky bi mu ñëwoon dafa am ay parti yoo xamante ni ñoo nekk ci biir wala ñoo ko seq muy par exemple euh, PS xam comme et cetera mooy taxawu je veux dire ex euh, comme la quoi euh, mais li may wax encore une fois mooy il faut ñu xam ni par exemple tey jii ñoom lanu doon xam nga président Macky Sall dafa ñëw jël ay parti yoo xamante ni ñoo nekkoon les plus grands partis de ce mu jël leen denc leen ci pot pendant douze ans yoo xamante ne dafa nekk au pouvoir muy PS AFP ak euh, PDS kenn déggatu mu am ay parti yoo xamante ni par exemple juddu nañ te mu bokk ci Pastef tey jii ñoom ñoo dem ba changement boobu sénégalais yi bëggoon tey jii ci régime bi fi nekkoon ñu def ko ay parti yoo xam benjamin lañ ci politique mais terewul bi ñu ñëwee sénégalais yi jox nañ leen bopp euh, ba tey jii lañu bëggoon ñoom sénégalais yi mu am mais tey jii li may wax encore une fois chaque fois fu ma toog te dama ko yàgg wax que ni boo jëlee tey jii biir euh, sàmm sa kàddu ku ci mel ni Khalifa Sall Barthélémy Diaz keneen Pape Djibril Fall keneen ak keneen Euh, Khalifa Sall man damay faral di wax ni bi muy nekk maire de Dakar euh, je suis habitué à dire que ni Karim Wade moo ko def parce que li tax Karim Wade def ko ko mooy Ablaye Wade l'erreur euh, erreur bi mu def ci foofu mooy il a investi Karim Wade tête de liste Dakar en 2009. Mm-hmm. te boobu Karim Wade n'était pas aimé par les Sénégalais. donc ñu ab Ablaye Wade foofu ba pare mu demeewul ak partiam dafa demee ak coalition bu tuddoon Benno Siggil Sénégal. Mm-hmm. comprendre nga donc mën nañu wax ni coalition moo ko may doole bu mu ñëwoon ci mairie bu Dakar. Barthélemy Dias tey jii ku ne xam na ni mairie de Dakar boobu nga xam ni euh, hérité na ko ci xalifa euh, Sall. Mhm. tey jii euh, li ko ko may moom xam na ni yeewi yeewi askan wi la. Mhm. yeewi askan moo ko porté à la tête de la mairie de Dakar keneen ne keneen Pape Djibril Fall. gis nañ ni mu demee son départ il avait un bon départ mais dem na ba ci biir tey jii moom it Sénégalais am na ñoo xam ne war nañ ko ginnaaw. comprendre nga euh, euh, euh, Bougane Gueye Dany moom moom je peux je peux je peux dire que ni bu amoon sympathie sénégalais yi symp sénégalais yu bari jëlaat na wala nanguwaat nañ ko parce que sortie yi muy def ak déclaration yi muy def keneen ak keneen ci biir kii booy xool Thierno Bocoum xam nañ ni moom camp bële la bokkoon ay temps moom ku ne xam nañ ca Idriss Seck la bokkoon te Idriss Seck moom boo jëlee lépp en en en en global da ngay gis ni ñii c'est des leaders yoo xamante ni sénégalais yi am nañ loo xamante ni dencal nañ leen peser pas lourd ñenn ñi dañ fa am lu ñu leen dañ ñenn ñi euh, euh, amuñu doole peut-être que coalition yi ñu àndaloon moo leen porté euh, wala moo leen may doole ba li ñu doon li ñu doonoon wala ñu doon ko tey ñu doon ko. donc encore une fois loolu aussi mën naa jàpp ni bokk na ci boo xamante ni am na seen kaw ba tey jii ñuy classé wu fii ci diaspora bi troisième wala quatrième à chaque fois ñu génne tendance wala kii boo xamante ni génn na c'est ça. d'accord bon résultat fële la Afrique du Sud. Mm-hmm. Euh, pour Elizabeth bureau numéro 1 euh, nombre cent 309 nombre de votants 125 euh, ont obtenu comme ni ko gars yi di defee Pastef 101 voix coalition Jàmm ak Njëriñ 8 voix coalition Takku Wallu quatre voix coalition Sénégal Kese mooy ñëw Alassane Sall 10 mhm. voix coalition Dundu une voix le reste zéro voix. yaakaar lii tamit xam nga tamit mënoo jël. mais mais par rapport ak barricade bi ñu def buntu kër Barthélemy euh, tamit dafa jar a xel parce que nag police mën nañu am information yoo xam ni euh, duñ ko gaaw a divulguer. Hmm. ne serait que pour des raisons de sécurité. or hmm. euh, nañ parce que nag ku ne xam na ni tension bi gën a mag ci campagne électorale bi ñu jóge ci zone boobu amee woon. Hmm. tey su parce que parce que police seen déploiement bi gëj na am ci élection législative parce que sànq ay côté 13 heures fi njëkk a déployé mooy zone Médina parcelle déployé am na déploiement bu ñu fa def léegi nii te sànq Barthélemy euh, am na attitude bu mu def boo xam ne bon ça ne se comprend pas d'habitude Sénégal liñ mii noonu surtout nga nekk tête de liste nationale soo voté pare au moins di nga adressé un message à la nation ak ses militants defaat appel au moins pour une dernière fois pour ñu mën a jóg voté ji mais dafa voté rek génn journaliste yi na mu répondre kenn voté dem dugg otom Barthélemy Dias mhm. deful benn déclaration dafa voté rek ñibbi mhm. nag li tax ñu barricade këram mën na nekk pour des raisons de sécurité loolu ba xëy na ci kanam na ci am lu leer mais mi ngi noonu daal mais daal euh, alaaji mais alaaji nag yow euh, coalition Sàmm Sa Kàddu dafa am looy faat gis nga politique li gi ci gën a garaaw la gars di bàyyi du bàyyi xel mooy da nga am base. ba pare mais yéen amu leen mbetteel par rapport ak euh, tendance yi tàmbalee wàcc ak Sàmm Sa Kàddu. Mhm. pratiquement ñoo gën a def bruit ci mhm. campagne bi. wax dëgg yàlla. si bon man moom bu dee Sàmm Sa Kàddu. personnellement aw ma ci benn mbetteel. Ah parce que déjà bi ma xoolee cartographe sàmm sa kàddu Sénégal ñu ngi ci cinq departement su ma juum ba 46. ci 15 départ 16 départements kese la dem de. mais su même bu dee intercoalition bu doon yow yaa ngi posé carrément xanaa au moins di nga présent ci 30 département malgré bruit bi ñu def. Hmm. mais dafa am lu man lu may seetlu ci nit man euh, politique benn instant du ma xool nit ki ndax siiw na wala siiwul parce que fii il suffit nga génn ñaar ñetti yoon nit ñi dinañ la xam. mais problème mooy est-ce que di jaral nit ñi ñu yeewu dem di la voteel wala nga woo leen ñu wuyu si la ainsi de suite c'est autre chose léegi nag beneen bi des dama seetlu seetaan seetlu sàmm sa kàddu ñu ko constituer les têtes Bart mun nga wax d'accord il est Dakar la nekkoon na maire maire Mermoz ainsi de suite Thierno Bocoum fan mooy basam Pape Djibril Fall fan mooy basam Caajaay na gañe Caajaay Anta Babacar fan mooy basam est que du Sangalkam. non moom Pikine lay wax nee na moom il est il est de Pikine. waaw naa gañe Pikine. keneen a keneen noonu. ñooñu ñoo ñoo dajaloo lan lañ mën ci Ousmane Sonko bu baax dafa mën a Ziguinchor mais niveau national la. mais Barth Barth si s'il perd euh, euh, à Dakar ban enjeu la mën a. xam nga Barth perte Barth perte na dakaar pare de day xool da koy gën a perte walla déet il le wax jee fi nekk de wax naa ko fii semaine passée. boo gisee yenn violence yeeg yenn xët-xët yi muy waxee su ko wóoroon ni day gagné dakaar du demee noonu euh, gis nga Bamba wax naa ko keroog gis nga politique boo ko bëggee analyser léeg-léeg indi ko ci làmb ji mbër bi nga xam ne leer na ko ni dimanche a jot dimanche kese tey bu daan waaj même bu ko waaj saagaa du ko tontu day retaan toog ni pat ba dimanche mu daan ko dem ñibbi. Hmm. kese boo gisee yenn violence yi di am yenn wax yenn haine yenn kii yi mais dañuy liir xam ni man tey suba j dama déglu bugaat mu wax ma déglu ko. ba pare dégg ko muy saluer discours bi président def waaw loolu la ñuy xaar ci moom ainsi de suite di espérer tamit que premier ministre euh, def comme moom parce que ñu nit lool la ñuy xaar ci ñoom ak ñu bëgg ko ñu bañ ko ñoom ñoo ñu jiite ñu bëgg ko ñu bañ ko même bu ñu àndal ak ñoom. ñoom ñoo ñu jiite ma ne attends. Bougane maa ngi gis ñu bind ci telem bi ci suba ak tey euh, Bougane xaw ma dina d'accord ci résultats yi. gën ci nous allons accepter les résultats. waaw nooy def.